jërë ngeen jëf mbokk internet si Siweulko TV ginnaaw bu ñu leen di waatee kon ni ko ne sa tur ak sa sant di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ginnaaw bu ñu jotee information bu naqari boobu information bu tiis boobu moo di Gaston Meng ñi naan ko Gaston production mu nekkoon benn promoteur bu mag nekkoon fii doon yëngu ci wàllum làng bu nekkoon koo xam ne nii ñëpp ràññee nañ ko fii ci Sénégal waaye kenn dootu ko présenté ci biti réew ak biti réew fii ci biir réew mi ba tax na moom lañ ñu tàggee ne daa wuy ji léegi sa borom ci li nga xam ne feebar boo xam ne tëraloon na ko ci lu lool nekk loo xam ne ñu ngi koy jaale mbokk xarit am di jàmm waaye di ko jaale axlu làmb ak képp koo xam ne rek yaa ngi jot lii nga xam ne moo di bataaxal boobu ñu ngi la koy jaale bu baax a baax nekkoon koo xam ne nii nit ku baax nit xam ne nii yàgg na jàppale jeunesse bi nga xam ne daana yëngu ci làmb waaye daa yàgg na jàppale jeunesse bi nga xam ne tamit nañ dox ci li nga xam ne mooy biir réew mi ñu ngi leen koy euh, masawuta di ko ñaanal suñu borom euh, jëggal ko daal di koy xare ci aljana yi gën a kawe mu nekk loo xam ne nii naqar ak tiis la ginnaaw bu ñu jógee ci làmb ji rek ci la ñuy jotee nouvelle bu naqari boobu boobu ñu koy mastawu baax a baax a baax te di ko jaalewaat ay mbokkam waaye tamit di ko jaalewaat képp koo xam ne nee naa la axlu làmb nga waaye nekkoon axlu di yëngu ci lu wàllam euh, production yëngu ci wàllam li nga xam ne moo di làmb mu nekkoon promoteur boo xam ne nii jàmbaax lool nekkoon promoteur boo xam ne nii làmb ji tey fu mu toll rek amaana bay na ci waar wu sori lool moom Gaston production ñu ngi koy ñaanal su borom daal di koy jéggal di koy xare aljana di koy yërëm eh, sarax si yàgg lool ci njabootam gi nga xam ne bàyyi na ko fi muy doomam jooju yàlla daal di leen gën a taxawu gën leen a tegaat